salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci mbiru Cristiano Ronaldo xam ngeen démb Cristiano Ronaldo bi Tottenham di jàkkaarloo ak Manchester United ca Old Trafford match bi jeexagul sax waaye kat moom dafa buub ay kaakaam génn ca match boobee loole nag li ko naqari woon moo di li ñu ko dugg lu ngir mu football tey ji ñoo ngi leen doon wax ni Erik ten ak nee na tey la ñu cey jël ay ndogal ndogal yooyee nag wàcc na laata ñuy ñëw ak yéen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 groupe bi nga xam ne ñooy football bu Manchester United di football moom du ca bokk du bokk sax ci ñi nga xam ne ñooy entraînement loole jël nañu ko muy waa Manchester United nee nañu ko match bi ñu am samedi ñoom ak Chelsea du ca football muy Cristiano Ronaldo ndogal yooye nag li tax waa club bi jël ko moo di Cristiano Ronaldo club bi nee nañu joxul cër waa club bi li ko waral moo di benn terrain moom fukk ak benn képp ñoo mën a dugg football faw am ñu toog ci banc bi yow toog nga ci banc bi dugaluñu la kon jarul ngay mer toogal ba match bi jeex nga ànd ak nit ñi ñibbi waaye loole mu def du lu rafet te joxul cër waa club bi joxul cër tamit jour yi nga xam ne ñoom la nekk ak te Cristiano Ronaldo kilifa la ci football warul doxalee noonu xale yi di ko gis te loole xale yi mën nañu caa roy waaye jóg ci banc bi ñëpp jàpp ne ca vestiaire ya nga jëm nga dugg ca vestiaire ya ba noppi jël say bagage dem sa kër loolee bokkut ci yar Cristiano Ronaldo match ba ba muy jeex fekk ko Old Trafford dafa dem këram loole nag naqari na waa Manchester United ba jël nañu ca ay ndogal nee nañu ko dañ lay écarter maanaam dañ lay ber ci groupe bi file ak samdi du entraîner te samdi bu mën sa Manchester United di fekki Chelsea du football ca match boobee waaye nag sa Athletic ñëw na ci ci lu yaatu. ndax waa mën sa Manchester United waxuñu ko keñ lay dellusiwaat si waat mën a entraîner ba noppi mën a football waaye sa Athletic nee na loolu nag mën naa yàgg ba na sax agent wam di George Mendes commencé na wut club boo xam ne Cristiano Ronaldo dina fa mën a dem football li des ci saison bi ndax moom George Mendes li mu jàpp moo di diggante mën Manchester United ak Cristiano Ronaldo jeex na tàkk ndax joxuñu ko àpp maanaam neewuñu ko bis bi wala weer wii ci ngay dellu si waat commencé entraîner ak football loolu moo tax George Mendes mi nga xam ne mooy agent wam